mbégte ak contentement di jëno yéen chaque jour nii naa leen yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen revue de l'arène di ko topp fii ci Leewtoo TV chaque jour waaye man day mbaake di am contentement di leen ko indil waaye leen tasal li nga xam ne ni moo gën a fës ci xibaaru làmb noonu laay def ne saraax ci journal suñu làmb moom nag ba mu xëyee xëyee ci xëta mu njëkk comme xëyee nag combat bi dina am le 27 mars 2022 diggante B52 de Mbour ak nga xam ne ni mooy Eumeu Sène Tay Shinga borom dof du wér lañ xam ne nag mooy ci ñoom ñaar kan la ci bagaar bi di arrangé la moo tax journal bi wax ko ñoom ñaar ku ci xam ne ay mbëru xeex lañ waaye mbër yu xamante lañ ndax ku ci nekk ñin ñaar ñamante ngeen ci loolu nag kii di journal bi la mu wax mooy rachat ou dóor lan moo mu wax ko Bombardier bu fayoo mu nekk 1-1 rachat lañ koy woowee waaye ki nga xam te ne nag mooy Eumeu Sène tay ci nga bu daanaatee Bombardier dañ koy naan dóor dóoraat wóoru sos borom sos soosaat ñi nga xam te ne nag moom la ñu wax nag ci journal bi nee nañ mbaa boobu bagarre est inévitable lan moo tax parce que forcément seen combat dina am xeex ndax xeex mooy mën a ubbi làmb ja te noonu nag kii nga xamante ni mooy carrière ak góor gi étudiant ñi total ci kan Cheikh Super Jamono ki nga xamante ni mooy Boy Sey numéro 2 ñu ne diit waaye mu indi Toubacouta ak Marle Manal ñaani numéro 2 kan moo ko taxawal ñu ne choc boobu nag Assane Ndiaye moom mi jiital Bawol production waaye Bawol TV moo ko daal di taxawal daal di taxawal trois combats renforcé ko ci combat ba muy amale le 22 mai ci nga xamante nii combat bu mag la kan moo ko taxawal promoteur bi nga xamante ne nii moo jóge Bawol daal ñëw dakaaru Ndiaye Jal Diop daal di fii liggéey liggéey bu ama am solo ba léegi nag rëm rëm nag moom lañ koy wax ci journal rëm jonglé en cinq minutes kan moo ko jonglé ki nga xam te ni mooy booy Niang numéro 2 wala Boy Niang bu ndaw ñu naan ko Niang bu ndaw impressionné na gan yëpp maanaam bii mooy premier combat am mu daal di ñëw daal di dëggal boppam premier grand combat mu daal di ci dëggal boppam moom Niang bu ndaw choc bi nga xam te ni beneen choc bi nga xam monté war nañ ko diggante. giro Seras ak nga xam ne mooy tonnerre numéro 2 kan moo ko taxawal ñu naan Fallou Ndiaye jiital njaay production borom Kewel Info ba léegi nag caatu Daouda Fall ak Youssou Ndour beneen choc la kan moo ko monté nag ki nga xamante ne mooy Modou Fall moo monté combat boobu ne mu nekk Fatma Dia premier combat ki nga xamante ni mooy Modou Niang moo taxawal combat boobu le ba léegi nag ñu desandi ci nga xam ne mooy journal suñu làmb ki nga xamante ne nii nag mooy duel de Ndama kan moo ko tëggal mu nekkoon dimanche bi passé comme ba doon am fenee ca Ibamar kan moo ko doon bëre ñu ne brise de mer numéro 2 moo daan ki nga xam te ne mooy bébé julde jël bu amul benn werante bébé julde nag ñu gëjoon koo gis ci làmb mën naa ne bi mooy deuxième défaite successive am dafa daan woon ba ñu gëj koo gis ñu naan bàyyi na wala bàyyiwul moom nag ba mu dellu si waatee ki nga xam te ne mooy brise de mer moo ko daal di freiné ne ko delloo fa nga nekkoon wala delloo biir saako yi ba Kaffrine na moroom moom nag deuxième journée jam production moom mi nga xam ne mooy promoteur Sénégambia bi daal ñu duppee drapeau ko ci sant bu baax a baax moom jamaïcain hmm, borom promoteur Gambia ak Sénégal ci nga te ni mooy diggante Kaw Gourdin ak Ronaldinho waaye rek làmba jax kii di Kaw Gourdin moo jël raw gàddu ko moo ko daan ki nga xam te ni mooy Ronaldinho jël bu set wicc bu amul benn werante kat daan nag jël bu amul benn werante ca lutte simple ba deuxième journée Bicol production nag mooy ki nga xam ne mooy ordinateur journal bi nee na Doudou neutralisé par ordinateur ordinateur nag moo jëwral gàddu ga fee nga xam te ne mooy ñaaning ca Mbour ba léegi nag ki jëlaat raw gàddu ga beneen dañuy ñëw ci journée bi nga xam te nii moo amoon fee samdi rëm moo daan ki nga xamante ne nii ñaabu ndaw moo daan rëm waaye keneen ka fa daanal mooy ki nga xamante ne nii mooy papp Laye moo fa daan ki nga xamante ne nii moo George Bourse ki nga xamante ne nii mooy Lat Diop Lat Diop Ngoné Latyr suñu buur bi moo daan ki nga xamante ne mooy Zo Lion keneen ki nga xamante ne mooy Zé Balla bay Fall moo daan ki nga xamante ne mooy Simba combat nag noonu la demee woon ca arène nationale ba léegi nag combat yi nga xamante ni mooy BMW BMW nag moo dicté loi fan la ko dicté ki nga xamante ni mooy Sidi Diamaguène samedi la woon ki nga xamante ni nag mooy caatu fadab moo fa daan ki nga xamante ne nii mooy Saa Kajoor Saa Kajoor bañ ca jógee booy ñang bu Malika moo daan ki nga mooy bébé ama bébé ama nag bu nekk Jali Birama Coor équipe boobu la nekk ki nga xamante ne mooy 2STV yi kaay baax moo daan safal bu bawal ki nga xamante ne mooy ruube moo daan ki nga xamante ne nag mooy tonnerre numéro 2 ruube bi da xam naa suñu groupe ba ko tuddee ruube ak kaay yi <laughs> ca noonu nag ba léegi damay desandi ci journal suñu làmb ki nga xamante ne mooy les junior les unions nag ginnaaw ba mu jógee ci victoire bi nga xam te bi defetam ne nii fils de Badlen City moo ko daan moom mi nga xam ne moo nekk sàkku xam-xam ba léegi nag moom lam def mooy mu ngay xaar promoteur yi promoteur yi nag ngir ñi mën koo tëggal combat mu mën a dellu siwaat ci làmb ji laay Bruce de l'air ki nga xam te ne nag mooy Bruce de l'air ka muy défier mooy Siteu bu Ngor ñu ne ko ak kan mu ne ak Bada Jaxaaw Baba Jaxaaw ñu tax nga nekk nga taamu ñaari mbër yooyu mu ne ñaari mbër yooyu ñoo mën a déclencher ñaari mbër yooyu ñuy jaay man donc maa ko a jënd ba léegi nag allemand allemand nag ba ngay entraîner durement lu tax nee na moom day préparé wu bu baax a baax a baax ngir préparer beneen combat buy ñëw ndax combat day bette ki nga xamante ni nag moom kër Mbay Fall la nekk mu ngay waajal boppam bu baax a baax ci entraînement ya ba léegi xam ne ba ñu amaloon démba ci am ci làmb moo tax seen journée dañoo teel a jug comme ni ko journal bi waxee tôt le matin ñu ngi woon ci arène nationale daal di def seen ay dernier réglage mu nekkoon combat bu neex a neex ñu koy félicité bu baax a baax ak jam nag mooy Modou Fall Modou Fall Fall nag la mu nekk mooy promoteur man wax naa leen sànq combat bu mu taxawal Modou Fall promoteur la léegi bu bees tax maanaam nekk na gan ci làmb ji ñi koy naan rek bienvenue dalal ak jàmm ba léegi nag 92 lutteurs en garde rapprochée face à la presse ce lundi tey jii nag dana amee ki nga xamante ni moo ko jiite mooy Mouhamed Fils ma ngay woote nag fee nga xamante ne nii mooy Euh, stade Léopold Sédar Senghor moo war a janoo ak presse bi waaye janoo ak lutteurs yi nga xam te ne moom la doon formé ba ñu daal di mokkal seen entraînement ba léegi nag bébé Balla bébé Balla toujours prêt pour le 29 mai 29 mai nag combat bi nga xam ne mën naa ne date bu mag la waaye combat bu mag moo ci am kan moo ko waroon ba rek ki nga xam ne mooy Garga 2 ak ki nga xamante ne nii mooy Mama Lamine boobu nga xamante ne nii waa Equivox ñoo ko taxawaloon waaye muccul aju ndax ki nga xamante ne mooy Mama Lamine moo amoon ay blessure ba ñu reporté boobu le komba waaye ki nga xamante ne nii mooy Ibrahima Diop moo décroché combat boobu daal di koy tëgg le 22 22 waaye nag ka ca nar a bëri combat spécial ba di bébé la ak toujours près ñoo ko nar a bëri incha allah waaye tey jii nag fee ca Pikine waaye mën naa ne Alassane Diogo kan moo fa woote ñu ne ma seen borom tay si nga borom dof du wér moo woote nga xam ne mooy open press war a jàkkaarloo taskat xibaar yi tey jii ci lundi waaye nag naataangoom wala adversaire am di Bombardier le B52 de mbuur mu ngay woote Mbour suba incha allah kon ñu joxante rendez-vous Pikine ak mbuur incha allah loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ju bare bare ñu doon topp ci Leewtoo TV di taaxeeru nga xam mooy xibaar yi gën a ruusa ci làmb waaye ba léegi damay sant di gërëm Fama Dramé Dramé Tukulóor sama caméra bu man bi kenn du yow umul laay laay damay bëgg ci yow bu baax a baax a baax a baax a waaye tey nag revue bi dama koy jël di ko ñaanal jàmm la ko yàlla defal yaa ju bari ci yéen ñaar gudd leen fan li ngeen bëgg ngeen ko xam yàlla na la ko yàlla defal yàlla bàyyi la suñu kanam bañ leen di weer di leen leen weer incha allah projet yëpp ngeen daal di koy motal bu soobee yàlla noonu laay def tàggatoo ak nag jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen